salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Sénégal noq na Cameroun 3-0 Ismaïla Sarr mention spéciale Ismaïla Sarr lii lan doon xaar ci yow Ismaïla Sarr efficacité bii nga manqué woon lii lan doon xaar ci yow parce que Ismaïla Sarr Sadio Mané dëgg la joueur la de mais Sadio Mané bu manqué si équipe bi sax yow yaay sunu deuxième position maanaam Sadio bu manqué warul tax équipe bi maanaam yow yaa ko war a téye yore ko à garde yore équipe bi téye ko lii lañ doon xaar ci yow mention espécial Sadio Mané merci beaucoup les Lions góorgóorlu leen jërëjëf Lat Diop jërëjëf Lat Diop jërëjëf Lat jërëjëf président laat Diop teg nga joueurs yi condition yu baax dugal nga leen fu baax supporters yi fu baax kenn jàmbatul kenn xiiful kenn marul jërëjëf Lat Diop ñu xaar sunu mbokkaay yeleen nag ba xam di naan gañe tey 9h Gambie yan yàlla leen yàlla may cay gars yi maa ngi ñëw nag ci kaabu bu doy waar xaar leen ma incha allah rabbi